ñaan yàlla ànd ak ak kilifa diine di ci liggéey ba ren ji covid bu wulliwaat indi troisième vague waaye diggante daaw ak ren naka wuta di amul woon ñàkku vaccination amul woon ba ko xoolee bu baax ba ñuy dem ci màggal ga ñàkk ay ñàkk amul woon dañ doon fagaru yàlla dimbaluñu ba lañ di doon tiit amul ren mu wulli mais nag ñàkk yi ñëw na loolu mooy mooy mooy différence kon boog li ñuy def mooy yokk li ñu defoon daaw ci wàllu prévention ak liggéey ci ba xam ne lañ doon séntu amul mais aussi li suñu borom indi muy ñàkk yi fexe ba ñëpp jot te ñëpp ñàkk loolu nekk na donnée bu bees loolu sant yàlla la parce que communauté scientifique internationale ñëpp leen war a gërëm sante leen parce que daawuñu nelaw 24 heures sur 24 gëstu ko yaa ngi gëstu te xam ne lii ñàkk rek moo si mën génn alhamdulilah rabbi bi ñàkk yi ñëwee te xam ne ku ñàkk moom moom du la faat te daaw amuñu ko woon donc nit nag da ngay xool li la suñu borom defal donc alhamdulilah rabbi alamina kon boobu message boobu ci kanamu docteur mi nga xam ne moom laa jëkk jox paral moom lay lancé ni ñëpp takk masque ni ñëpp ñàkk ji moo xam ku dëkk ci région bi la moo xam ku dëkk Touba moo xam kuy ñëw Touba aussi na góor góorgóorlu ba boo gisee fu ñuy ñàkk nga dem ñàkku te tey takk sa masque loolu daal mooy appel bi may bi may lancé beneen bi mooy di am yaakaar ne ginnaaw wàllu santé wàllu sécurité gis ngeen force de sécurité yi ñoom seen xarañ ku nekk xam na ko seen taxawaay ku ne xam na ko noonu dañ ko taxawee woon daaw noonu dañ ko fas génne taxawee ren wala lu ko ëpp loolu dal la xel police wax na gendarmerie wax na euh, sapeur pompier wax nañ rawatina nag sapeur pompier te waxuma la mbas mi waaye ndax euh, màggal day tombeek nawet boole ci mu nekkaat beneen défi encore naka la ñuy def contexte màggal bu tombeek nawet en plein millier de l'hivernage au mois de septembre là aussi avec euh, tali yi nga xam ne mën nañ jël ndox koñ yi nga xam ne mën nañ jël ndox yan matuwaay la ñu ànd ak waa mairie ànd ak waa ONAS ànd ak waa ministère de de l'eau ah loolu aussi nekk naat beneen défi bi nga xam ne du du du du yomb du mat a xoolaat ci wàllu ndox nag aussi séntu nañ ay amélioration gis ngeen forage bu bees bi war def à lieu loolu aussi dal na xel te daaw amul woon dalal nañ suñu xel nag waa waa waa OFOR nañu forage boobu di ko mettre en service ci màggal gi loolu euh, dañu vraiment bu bu ñëwee dina améliorer la situation parce que nit ñi dañuy sonn bu baax ci wàllu ndox jamono yi jamono yi jamono yi màggal naam liggéey bu bari def nañ ko sous préfet taxawal benn comité bi nga xam ne ñu ngi saytu lu jëm ci affaire ndox mi comité comité boobu vraiment dynamique la ñu gis naa seen rapport yëpp ça veut dire que ne yéen pare ngeen sax balay euh, CRD bi pour ñu jéem a saafara problème ndox yi am Touba mais seen plan d'action bi ngeen bëgg a teg ren am nañ yaakaar ne suñ ko lëkkaleeg li maire nar a indi mooy camion citerne yi ak camion citerne yi ngi nar joxe ak partenaires yi sax parce que man am na samay partenaires yi mu dimbali woon sax daaw n'est-ce pas Euh, ba Sonatel aussi bi mu ñëwee fii le directeur général ba ma wax ak moom ba convaincre que joxoon nañu ay bâche dinaa ko waxaat ne ko nañ joxaat ay bâche mais bâche yu gën yi mañ joxoon xëñ ni sax hydraulique mën nga ma jox euh, façon bâche bii gën xëñ dama yónnee ko nekk booy utati bâche utal genre bu mel nii parce que gis naa ne daaw lu muy xat-xat yëpp dëgg yàlla fexe na ba indi ay bâche yu bees tàq waaye yéen yéenay techniciens yi xëñ na yéenay wax bâche yi nga xam ne moo moo moo gën daaw délai bee xatoon ren bon xaw na xat mais ba tey nañ ko nañ ko nañ ko ko waxaat rek muy directeur euh, général bu Sonatel monsieur Dramé vraiment mu nekkoon ku am yëg-yëg bi ñu ko waxee fii la laa ko recevoir ak ay monsieur Ankantara ñoom ñi mu àndal ñëpp ki yore kireen def nañ def ne ma lu mu xat-xat xat dañ def dara waaw dëgg yàlla def nañ def nañ def nañ dara loolu yu mel noonu la ñuy boole ku ci nekk indi sa contribution tous les services techniques les services de l'État les partenaires pour ñu mën a réussir l'organisation de l'événement.